usines yaa ngi fi société yaa ngi fi yokkute dëkkuwaay yaa ngi fi yokkute lii nag ñun ñi daan faral di dem ay coupe du monde coupe d'Afrique dañ ko daan gis ci yenn dëkk yi léegi dootuñu ko xoolati fenn dañ koy xool ci sunu réew te loolu ki la ko defal danga ko war a sant parce que vraiment lu am solo la pour la jeunesse te ñun ñi yëngu ci wàllu sport yaakaar na le président de la république defal noonu quand même ñun ñi bëgg làmb arène baa ngi nii ñi bëgg basket ak spectacle culturel lu mu mën a doon arène a ngi nii ñi bëgg football stade baa ngi nii waaw loolu yokkute la kon moo tax jeunesse bépp génn kon donc président ñu ngi def dara pour la jenes mu retourné tuddee ko bettu ma je le waxtaan naa ci ak seen benn naataango semaine passée mu laaj ma kan lañ ko war a tuddee ma ne ko nanu bàyyi lu xew ñu tuddee ko ku dee mën nañ ko tuddee kuy dund am na ñu dee ñu baax ma wàdd wàdd Pape Bouba Diop Bokande ñoo ñëpp baax nañu waaye lu rëy da nga koy tuddee ku rëy. ku la am nu mu mel ci yow lu mu def ci yow ci sa dund moo tax bu ko tuddee ab Ablaye Wade man bettu ma xamoon naa ko bi ñu waxee le nom Abdoulaye Wade on na ma yëkkati tuuru Ablaye Wade ci